nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di gën a nag sunu mbokk mu baax ma te féete woon na ci liggéey bu rëy rëy muy alxuraan ñoo ngi koy siyaare ñëpp di ko saa julli ñëpp bett nañu waaye sunu borom moom kenn wër sa am bett ndax suñu boobu moom moo xam li muy def moo xam ne tax mu def moo tax moo xam ne mu koy defee kon dana war a déglu rek di déglu ndigal bu mu toll ak ñun rek nu toll nu toll ko kon mën na ne am mën na ne lu ñu waroon a am mbett lañu ci eh, ñàkk gi ñàkk suñu wettal bu baax ba man noo féete ci suñ fépp toll fañ ko gën a soxlaa waaye nag yàlla moo xam ne muy def ginnaaw nag dafa noppalu ji moom ndax fii moom liggéey rek a fi nekk liggéey rek moom mënut a noppale mënut a mënut a neex waaye am liggéey dong nga fi nekk lay nekkul kon nag alhamdulilah bu demee ñu dénkoon ko. li jiitu ci liggéey bi muy liggéey bu rëy eh, jafe ci coobareem eh, loolu dañu daal daal delluwaat lépp ci suñu borom ndax moo moo xam moo sañ moo xam li muy def waaye nag alhamdulilahi rabbil aalamiin eh, taxul woon nag te nu ñàkk yaakaar ndax xam na ne moom suñu borom jeexlewul dara te sëriñ bi mi mooy borom liggéey bi itam fa lu mat a fàggu fàggu na ko lu mat a fàggu fàggu na ko kon ci pàgguteef rek la nekk kon jaare mënu fi am loolu nag moo waral eh, eh, liggéey bi nga xam ne moom lañ dénkoon dañ maam mor moom yor ko yor yu rafet na mu ko noo ko yore noppal na ci wettul na ci lépp nag ci ci lépp ci wàllu liggéey bi daal eh, la jëme ci coowareem loolu ba mu amee itam dama jàpp ne dama dama daal di am yaqin ne eh, foofee mu féete woon ci foofee mënu féete woon eh, ci wàllu taxawaay bi eh, moo tax ma daal di yónni ca kër yi bëgg muy muy muy si àbbo xamal ko ne ko liggéey baa ngoog te itam soxla nañ ko ku taxaw fa si maam moo taxawoon it man koy wax it eh, amul ci benn jaaxle xamoon na daan ko am nan na koo bëggee hmm. loolu nag moo waral dañu eh, hmm, boo hmm, defe ko nii mu ko defe eh, liggéey ba mu yebal ko mu des si fi noonu nañu joxe woon ndigal sëñ Mamour ñu jox ko ndigal sëñ xabar mii loolu nag euh, sunu xel dal na ci bu baax a baax a baax yaakaar naa ne boobu cër boobu euh, euh, ko ci wàll yëpp kon alhamdulilah rabbil alamin yàlla mooy def kenn deful nag yàlla mooy def coobaram xëy na bi mu bi mu fi jëlee sëñ Maamoor itam xëy na rafetoon nañ jot bu baax ne dana am ku ko mën loolu nag moo moo ci moo ci agsi donc kon ginnaaw sëñ Abo xalaatal na euh, loolu kon dañ daal doy dañuy doy sëkk ci daal di koy jox joxaat jox ndigal ca liggéey boobe suñ maam ma féete woon nu ca yoroon na ko yoroon rafet loolu dañ daal di am xel mu daal mu sëkk yaakaar ju doy sëkk euh, ci ñu dénkaat ko suñ xabaan mu féete nu fan suñ maama féete woon ci wàll yëpp nag ci ci ci wàll yëpp ci wàll yoon wi xanaa boobu da cee gën a diis waaye doy ci wàll ci ci ci wàll yoon wi yëpp kon nag moom suñ kon nag mu ngoog euh, digal laa ngoog ñun ñëpp itam lanay eh, sañ suñu warte ah, mooy ànd ànd ànd koog yow kon na nga xam ne eh, naka daal ci sañ abo eh, ñëpp dañu ko ànd ak yow waaw ci biir activité incha allah te am ci xel mu daal nag baax a baax a baax a baax am ci xel mu daal bu baax am nañ ci xel mu daal boo xam ne sax xawul a jaar ñaan waaye teewul nag daan ñaan daan te daan ñaan daan naan ci mbaxu sëriñ bi bon mii dafa gis nii gàttu laak tawfeex ci sa ci sa lépp nag biir ak hmm. eh, loolu nag ci biir loolu wér ak eh, fan gudd ak waan ak kàttan eh, na jiitu ci tawfeex jooju ba nga mën a nekk ci liggéey boobu te yàgg ci lool borom liggéey bi gàttu na ngërëmam loolu rek mooy loolu rek mooy kàddu